mbokk yi suñu ci Leewtoo TV nuyu nañ leen siyaar leen tey nag le 31 juillet 2019 ñu ngi fan stade Iba Mar Diop saison bu ubbi woon ci bismillahi rahmaani rahim nar a tëj tey ci alhamdulillahi rabbil alamin ñuy nuyu ñëpp di siyaar ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm di balu ñëpp àq képp ku ñu tooñ te yëguñu ko ñu ngi lay balu ak ku ñu tooñ te yëg ko tamit ñu ngi lay balu àq ku ñu tooñ moom jéggal lañ la di ñaan yàlla mu jéggal ñëpp defal ñëpp jàmm Talla ñi ci prison yi yàlla nañ fa génn te delluwaat ci seen sago ñi feebar yàlla nañu wér ñi ci suuf yàlla na leen yàlla yërëm xaleen aljana maanaam daal yàlla na ñëpp am jàmm taala waaye sëñ bi ba maara ngi jéeya fi woote Pape Yékini bi ak ñu gën koo xam ci turu Kalmu Ndour école Boy Niang taala dañuy dem stade mbaa ngi nii gis nga gars yi ñu toogee ñu ubbi tey ñu tëj tey saison bi xanaa kon war naa neex taala man caay laa sol tey xool sama caay caaya laa maye caaya xam nga caaya jëlal lii seex fi jaar maam seex anta borom daaru salaam moo dàq ñaw ci réew mi moo ko dem kaa kuteel ak muslaay caaya jaa ngi ah waaye sant yàlla bi may ñu commencé ko si jàmm te euh, am yàqin ne tey itam dina jeex ci jàmm donc euh, félicité famille lamb yëpp moo xam promoteur la moo xam euh, acteur la moo xam amateur la donc bëri jàmm te am nañu ay combat samedi ak dimanche am nañu yeneen comme tey mercredi donc euh, mën nañu ne daal am nañu ay compétition maintenant de liggéey bi nag des na liggéey nit liggéey nit lay mën a doon yooyu day am lu manqué donc il faut que ñu dellu Sénégal xam ne làmb ak lu mu doon sport la da am wala nga ñàkk bañ nañ ko a tuddee ko làmb mën daj wala nga làmb doo daj dara donc il faut que nit ñi comprendre loolu waaw. côté arbitrage ni tamit ren bàyyi maanaam bari na luñ ci lu leen ci naqare. ah mais kooku daf di euh, ñaari combat moo am ci année bi ñaari moo am ci année bari na de. ñaata ñaata affaire arbitre am na yu ci am daal. waaw na li ci am mooy euh, ñaari combat yu mujj li ñuy wax. muy combat wu Boy Niang ak combat wu Tyson 2 ah waaw mais comme sànq li may wax sànq ci waxu euh, yëfu nit mën na am fi at bu tolloo woon xëy na jiwu ko xaw ma nu mu demee mais lu wër ci mooy Boy Niang jox nañ ko jël bi donc Lac de moo gagné non Lac de moo moo euh, ñeneen ñi itam defaat nañu seen recours mooy waa kër Tyson 2 ah ñoom ah, commission bi koy saytu dina xool am nañu suñu image yu bokkul ak image yu télévision yi donc loolu leen di yombalal seen seen liggéey mais bu ñu waxee ay affaire arbitre arbitre non arbitre boo boo amee huit ans huit ans combat ba pare am ci trois nga bëgg ne arbitre arbitre amul. mais li Malick moom def keroog arbitre ci combat Eumeu ak euh, Modou Lo ba àddina yëpp di ko coow ak di ko rafetlu loolu mu leen def yéen en tant que ay kilifa. mais dugg leen. keroog bi bi cité dóoree sos mu daanu moo fa nekkoon il a fait la même chose. waaw. même Malick ñëpp lañ leen jàngal secours balaa balaa ñeneen ñi di ñëw ñoom ñoo jóg agsi donc dafa xamul lan moo tax nit ñi naan Malick Malick Malick mais du dugg nag ba pare dimanche am na dóor mu daanu samedi dama ngeen arène nationale am na fa ñetti dóor ñu daanu wax nañ <laughs>

tëye il faut informer. Ardo soufflé na ndeysaan premier combat de soirée tey di mercredi 31 tombe Sossokh war a tëj Toumbouctou moo féete à gauche Naturel féete à droite Naturel ngemu bu Dundu ngemu noir Naturel ak Dundu waaw Dundu de moo gën a wóor yàlla nañu Dundu Dundu ko ànd ak ñëpp. mi ngay dóorante na jël ko ñu ngay dóorante ana war nga mënu bulal ramdaan eh ramdaan tànn na ko Talla Ndiaye delloo delloo na ko bu doole rek wule rek wuli la mu ngi rakk yu ne de loo wax waaw rek di santaat yàlla di julaat ci yonent bi di gërëmaat suñu ñaari waajur di santaat ak lu làmb yëpp ndax yàlla def na làmb ji mu ubbi si jàmm di tàggatoo waat ci jàmm ñu ngi ñaanaat yàlla déwén ubbi waat ci jàmm ñëpp am jàmm mais di nga wét de dinaa wét trop barki yàlla fi mu toll nii saison bi dana tëj instant bii nii moo tax gisoo dama xaw a stress quoi yàlla ñëpp am jàmm tey nag giri ko ñaanal yàlla ndam suma waay la sama xarit la ñoo bokk écurie quoi di ñaan yàlla defal ko ndam di nuyu waa Malika di nuyu sama grand da di nuyu sama boy may àndal ku ci mel ni ñoom Diall ñoom Cheikh Tidiane ñoom Baas ñoom Papa ñoom Pam Ndiago sama gars yi may àndal daal mafia bi gis naa niñ ma taxawoo sant naa ñëpp di ñaanal ñëpp jàmm yàlla ñëpp am supporteru Grand Mbagnick yaa ngi taal tey ngay bëre grand combat waaw man kay Pape Yékini loo koy wax la tey. muy grand bañ. muy grand bañ quoi. ah kon moo la tax a ñëw tey. waaw moo ma tax a teew tey seetaan. xanaa di nga wàcc wayal ko kon. ah non bàyyi ma kalu nii rek. ah doo wàcc may ñu dara tey ci ci ci lamb ji. bàyyi ñu kalu nii rek seetaan xam nga. Ah. waaw. mais saison baa ngi tëj de loo wax. baa ngi tëj yàlla na tëj si jàmm. comme tëjee woon na ci bisimilah rahmaani rahim yàlla na tëj ci alhamdulilah rabbil alamin saison bi ñu jublu aussi yàlla nañ si dugg ci al bisimilah rahmaani rahim. buy jeexit yàlla na jeex ci alhamdulilah rabbil alamin wayuma jamay ke mooma yóbbante nee nga wayal ko wayam bi retangati wawoon o tig ñaanana sëñ naam ta modulo lu ma la waa dinaa la ci kanam nga ñëwaat ma la moo yàqoon combat bu ñu ba ca booy bii la woon booy maa ngi lay bëggee. maa ngi lay bëggee grand Babacar. Ramdan numéro 2. waaw maa ngi lay lu bari. waa di bëggee sama grand bi wuli. waaw comme ni mu koy waxee rek waa lii neexut. waa wuli. waaw maa ngi bu baax. wax dëgg jàpp na ci combat bi bu baax a baax. barke alxuraan sama mag la. sama grand la jàppale ma trop. barke rasulilah may ñaan yàlla nag. bu jëm kanam sama rak la ñoo sama mag la ñoo bokk yaay. ndar xam na loolu. ndar moo ndar ndar mi ma war a doo mu mu daanu. ma war a doo béy mu daanu. ba ah. moom mu yem mu toog mu daanu. ma andi wuli wuli daan wuli andi ma tey ma daan lii neexut ma gën a xam. ngeen muy noir. dooran pëlëm. et eh, laal na mu jël tànk ba mu génne ko. sol na koo yokk ko maa daanu wala daanoo gul ni daanoo gul de mu nga ca de booy naroon ak top 5. jël ba mu ko daan rëy na waaye top 5 yóbbu nañ la top 5 Talla Ndiaye top 5 la ñu xar dal di ko aajee ca kaw xool ko xool ko xool ko xool top na top 5 ay waay top 5 jogal sangu ji dina war a bëre seen naa la si loo ne awa bëgg naa la. dara xewagul la ñu ngi lewaatoo. Thank you. Fëgg na ko jël ma jël na ko gos daw na ko jël mu tënk ko sol na ko ndengeñ sol ndengeñ mu koy door ca suuf ee ee fàq na ko wër na ko ndox ee bañ na taf gal na ko daan na ko oo oh, Talla Ndiaye jël wër na waay lool daan bu rëy la yaayay jaaxaan nañ la daanee rëy ay mbaram pikin la waa pikin waaw waaw Babacar dégg lay ziar. mbaa yaa ngi am jàmm. sant yàlla bu baax. dimanche ngeen am Eumeu Sène yéen waa Pikine yëpp mu bëre ak Modou Lo bëre bi fi mu est-ce que xaaroon ngeen ko dóor mu daanu boobu. waaw xaaruñu woon loolu xaaruñu woon sax defet mais loo gis nit sama lu rek la am yàlla nag mooy dogal Eumeu Sène indi na victoire bu nekk Pikine bu ko lii dalee dogalu suñu borom la parce que bu muy ñëw kooku ku nekkoon di nga di nga di nga jël ni coup boobu. da ko gëm waaye nag lamb la daanaka daanaka si nekk ñu koy ñaanal di ko defal rek ñu jugaat taxawaat ay rakam yàlla naan ko combat yàlla may ko ndam. Eumeu Sène tamit dinaa la laaj leen parce que technicien nga est-ce que buy bëreeg Modou Lo li ngeen ko waxoon. waaw dañuy waxtaan rek liggéey pour ñu taam yàlla dogal loolu mu jur ci làmb ji yàlla may.

L'association ñu suñu machine bi bëri na. mais père gi dégg naa lay xeex de. Ah. xeex yi kenn ku ci ne wax ngi. Père Bécaye ngongu. Lampe en général à droite lampe à la ilaha illallah lewato général sëkkantal na ko rek di ko xool ewe eh lampe ak général na ko lampe dóor na waaye tamit allez baax na ci le drapeau xel nangu na ko léegi naaj na macha allah Aba say borom stade bi nag ndeysaan léegi naaj na Aba sa ngooñ waaw waaw. koy sànni ay mbay jooy fay naan loolu ak dégg la bokk Babacar dégg waaye nee na way yaay Samba ndeysaan <laughs> eh waay ñu ko kottu ko général da ngay daanu ah way naa da koo kottu añ ko mu delloo ko daan ko ci lu bëri waaye lampa nji keneen nag combat ama seen Modou Lo la ca xew ba mu ca awee la ca am ba mu amee moom moo def la ca am ba mu jur coow ñëpp rafetlu ko Malick maa ngi lay ziar. Euh, Babacar maa ngi lay ziar euh, balaa dara may nuyu sama bàjjan Tening euh, nga xam ne mooy sa soxna vraiment di ko félicité dégg naa ko bu baax xëy na. liggéey bu bu rafetee xam naa nekk ci ginnaaw waaw acte bi xew keroog xëy na dafa nekk acte naturel bu eh, am lu xewoon ñu waroon ci def ay jéego yàlla may ñu def moom mu gën ci. Malick li nga def keroog lan moo la ko def loo loo jàng la wala lu nekk ci yow de naturel. bon xam nga nit koo gis xëy am na fu mu jaar eh, ci loo xam ne eh, say expérience personnelle. boole ci formation boo xam ne jële nga ko ci arbitrage parce que arbitrage dafa am commission médicale dafa am commission affaire médicale boo xam ne pàcc la ci formation bi. Euh, ne serait-ce que premier soin yi pour secourir koo xam ne dafa nekk en danger vraiment nga ñëw parce que loolu moom même boo deful formation di nga xalaat ne kii nekk en te am na loo xam ne mu ngi ci gémmiñam rien que pour prothèse boobu rek war nga xalaat ne lii bu ko xëyee xëy na am nga jéem a daal li ci nekk daal. li dégg ñaar ñaari yoon ngi mu di la dal ci làmba Zoss ak Siteu la woon tamit yaakaar naa la wax. waaw Zoss euh, juge la woon nekkuma woon arbitre mais bi action bi amee bi arbitre bi di dem pour consulter juge yi man dama romb après dem directement wëlbati Zoss génnee protège bi ci gémmiñam donc loolu comme ñun dañuy jàngal ne mbër yow yaa war a sàmm ay cëram maanaam protéger intégrité physique am. bu nekkee en danger premier secours bi presque yow mi ko gën a jege yow la doon donc il faut nga yor leneen lu ndaw loo xam ne mën nga ko def parce que sooy bakkan moo ëpp fuuf jël ak ci am na jël ci am na ndam. Malick jàngalekat la wala. waaw damay jàngale. Euh, damay jàngale Kaab di Diassé laa nekk di jàngale ci école bi euh, depuis pratiquement 2002 mais ca àll ba laa jógee nag boof laa dëkk di nuyu waa boof yëpp. waa Mbof yëpp di nuyu waa Jaxaaw waa tundu Fatick bi parce que ministre Matar Ba presse dëkkam laa dëkk fa laa dëkk ñoo bokk dëkk presse xamante wuñ certes mais man yàgg naa ko xam parce que dama nekk xale di ko seetaan moom muy góolu nawetaan muy góolu nawetaan ma ne xale di ko seetaan ba yàlla nag bu ñu demee aussi euh, ma gis ko foofu di ko nuyu di ko nuyu bu baax di nuyu président Alioune Sarr di nuyu waa CNG ak waa arbitre yëpp parce que geste a xëy na ci man la jaar mais ñun ñëpp a ko bokk. mais tamit loo koy wax sama soxna comme sa bàjjen tamit la tudd tamit. sama bàjjen bii ñoo topp ki topp ci sama yaay tamit ngom la tudd moo tax bu ma lay suuf chaque fois ngay naan ñi naan korte niñ dama ci am fierté di la ñaax di la encouragé nga niir ma ko bu baax a baax a baax a baax ah. teneen laakal ma ko séeréer dégg na séeréer. waaye seen teneen merci nag ma defoon na vraiment bëggee am parce que Babacar waxee Jalla mi ne Thiel mosu ñu wëndoo woon na daani parce que mu ngi ko refaa foofu ànd ak yow war a to roga fi mi oxe andoona yee ten reefu took baaxes a ni'el ten i nqom Babacar aussi a o kiin o yaasam roog a fokat a nuun a ci'a nuun ɓasil mbarke ka andoona yee a xupa njort nuun daal ten in vraiment maxey simnang a paax a paax a paax content ok Talla Ndiaye nuy naa leen bu baax a baax ok Talla Ndiaye jërëjëf merci beaucoup waay mbërëm yefu ndooy mi Mathia Ngongou ak Alias Baldé alias Balde Macha Macha nu wan ginnaaw mbërëm Lebu Ndoy la jabari taala mbërëm maa nekk ni alias Balde nekku góos alias daa daanoon xarit ba dund Macha jëlal ko rawas la dëgër de ko ndi ñoom ñaar ñëpp ku la ñu fi mujj ndam nga de xaw nag tey nu ngeen di tëjee saison bi yéen ñaar Macha Macha waay xool Macha la mu duw ca kanam nga macca ngeen jàkkaar lool macca ngeen jàkkaar lool Alias Baldé leen wan ginnaaw Alias Baldé ngeen mu son téere yu son e eh way de zone noire laa ci xamul waaye Alias Baldé moom zone blanc def moom Alias eh Alias sàcc na ko de sànni na ko droite Alias nag xeex rek lay def ak ko bëgg xeex Talla Ndiaye. dugal na ko droite Macha di ko xool rek Macha daa ni song la bëgg de daw na jëli ko ah mu tëru ko yeggul yeggul. da koo bëgg a jàpp da koo bëgg a jaay doole da koo bëgg jaay doole Alliance Baldé bañ na de diggante yi ngemb eh Macha génne na génne nay loxoom Macha jàppoo nga jàpp Macha jàpp gën a wóor na kott na ko mu bañ donc Macha lay daanu ah wala Macha daanoogu Macha ndax bëre woon ci kaw arrangé na la ndaama nga lee yaa waroon a féete suuf màcc sikki bi baaxul ci de màcc bërëb naa ma ci suuf ngay féete ndax dugg na wuur Talla Ndiaye sa morom soxna si ndax li mu def wuur na sa morom soxna si Talla Ndiaye eh war na ko da koy tuur daan na ko eh ba mu samp bopp ba màcc daan na Alias Balde Talla mbërëm li bu ma daan na eh mbërëm kii di way ma daan na Alliance Baldé e eh, way ama sant ama sant ama sant way ban écrit nga nekk école Lutte Mansour Mbaye ren ñaata combat nga bëre non ren moom damaa ne balance quoi mooy la. ndax waaw ma rek ren moom xaw ma laam ñi dafa biise boo xoolee mbër yu bëriwul ñoo ëpp mbër yu bëre waaw mais xam nga rek teewul ñu ngi ci àll bi quoi di compétir. am na loo àll bi ren. waaw waaw ñuy ñàkkante xam nga rek àll bi moom mooy loolu des fois mu neex des fois mu naqari quoi mais teewul ñu ngi sant yàlla bu baax a baax bi lan la. waaw ambition bi mais boo ma doon roi des rek comme samay morom. est-ce loo yomb na yombul mais liggéey rek mais li ci li ci war sa jur ñu ngi ci incha allah ñu teg si loxo suñu borom rek waaw bëgg si yow baax a baax a baax jaaraama. mais match bëgg naa. Bakar bëgg nañ la. match tey combat bi lan moo tax nangu woo xeex. du du du woon xeex yow xam nga ne man ragal ma xeex mais fekk ma ak moom xeex waroon naa ko signature bi bële daan laa seqal moom. lan la gërëm ñu ne nekkul si yow. lan la gërëm si lépp sama la. waxoon naa leen ko démb tey wax leen ko suñu papa la am solo. ok Mbalka def. Mbalka def. waaw waaw eh, ee waay waay waay saan waay dañ lay daan def moo tante def bañ na de def Malka yaa <laughs> waay def Malka def Malka yaa Malka daan neex waay eh Paul Girbu Malika ee eh, xeex laa ilaaha illallah lool dal na ne Bukar jëlaat na ko mu génne ko waa IPR kit door inte dal na jël na ko fu mu jëm moom jàppoo ca kaw IPR kit yow dugg na de ee eh, Girbu Malika moom ngeen jàkkaar lool man ta yàgg daa mel ni de lii bu du yàgg de Girbu Malika ngeen jàkkaar lool waaye Girbu Malika ak Boy wàcc na dóor Leewtoo daw na jël ko eh Gris jël na ko jël na ko de yëkkati da koy yëkkati mu bañ tuur ci suuf faaw oh doole yëkkatee noonu taala tuur ci suuf waaw. jox ko Abdoulaye Abdoulaye suñu papa Cheikh Mbaye Cheikh Mbaye Cheikh Mbacke Mbaye moo indi nag boobu pare naa pour jënd lépp barke Xaadim Rasul waaye ci damaa woo ne ma pour jënd nag pour jënd soble pour jënd pomme de barke Xaadim Rasul moo waral ma jàpp jéey suñu papa Cheikh Mbacke Mbaye moo indi nag bi ànd ak Baye Laay bu fekk ko papa sans baay. woo la booy daje xam ne. wax naa ne combat bi kii ëllëg bu bëgg xam naa moom benn. saison bi tey de. Léonard production. lan mooy sa secret. sama secret ànd ak nit ñi rek ànd ak ñu seen xol rafet ànd ak ñu baax man de pour man loolu la di leen sant di leen gërëm bàyyi ma kenn naru moo sax wax tey wala naru moo ne ñëw parce que bii si woon naa bii si boo xam ne nii mënu ma la wax ni mu toll mën naa maa ngi door a ñëw ci stade bi kon maa ngi sant yàlla bu baax di sant ñëpp di gërëm ñëpp bilaay walaay xoolal am mbokk rek a wóor am ñu lay jàppale te li lay wax dëgg rek moo wóor lii daal am na dëggoo ko maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyi wu ma kenn di sant waa Ahlou Lamb bu baax Thank you. kenn yaa ko raw dañ lay nax rek champion la ndaanaan la Coly na mujjee daan ñun daan bu ñu leen di lim fii la ñu faral kon li tax nga jël ko jël nga a bëri ñi ma war a bëral ñoomay daw ku dina sox nga jéggi amoon sox te ñun ñu mooy suñu métier ay xale lañ dañoo war a bëre bëre rek moo ñu jëm dama koy sant moom topp nañu daaw ba léegi bëgg bëre ak moom na bëggal boppam ñu jiyaar sëñ Fall rek doone waaw ñu ngi sant borom bi bu baax yow yaa waroon tëj tey saison bi la moo tax maa waroon tëj mais xam rek dañ ma woo dernier moment dama sama adversaire dafa blessé oui daa blessé. waaw dafa blessé loolu la ñu wax waaw waaw. bi mu blessé est-ce que utal nañ la keneen wala. non utaluñ ma keneen parce que yaakaar naa jot nañoo démarrer ay nit mais dañoo bañ quoi waaw. sifflé na Abbas waaw bu ñu Abbas nag moo yor ba maar bi loos bi moo fay toog ku dugg moo lay xool moom la jël delloo njukkal tey ci drapeau combat bi ñu koy bëree Guiro Seras à gauche Boy Dakar à droite ñuy lewaatoo tey di mercredi 31 juillet 2019 waaw Boy Dakar ku mën a Guiro Seras Boy Dakar daw na jël ko Boy Dakar day fànn jàpp tànn eh waay ay waay wayal ba mu neex samay maam lay woy samay maam lay woy baaxam lay waay waay taala mayel eh waay xoolal liiru eh waay daa mën a bëre Boy Dakar jëlal Talla Ndiaye jëlal jëlal jëlal Talla jëlal eh, Boy Dakar a xam-xam bopp la wax xam-xam ba. Kara Mbagnick ngoogu xel mu nduur am na lu mu dugal ca genn ca ca ngemb la koy jox geneen ak fas cey Kara Grand Mbagnick a ngi nii mbërëm ñoom Grand Laye nii ñoom Jiga ñoom Koli doomu ndeyu Jiga Grand Mbagnick Pape Yékini ngi na la may seen ñu ngay préparé wu Grand Mbagnick mu ñu dafa dóor mu daanu ndeysaan Grand Mbagnick a ngoongu Matar Ndiaye koy mënaan see Matar Ndiaye mataare waaye dina roy xool les les karaa ngi nii xool taala xoolal pour xam waat xoolal mana sa boy ñaam ay tiktikam la sol ndaysaan ñoo nga ca de garaa mbañi ka ngongu moo Pape Yékini war a daje Talla Ndiaye ñu ngi ci gàllaa yu mujj yi am na ko grand di tàllal morceau bu xonk mu koy def ca ndigal koy tag ca kanam boog am na ko Pape Yékini joxoñ ay béjjén sànni. ah la pataake dama koy daw ma. Eh, la pataake pataake moom bu ko fi wax. am na am na benn mbër yu yoroon de. wax sax waxi la pataake taala. man dugguma ci la pataake man. baax na baax <laughs> a la pataake. pour xaana ko yor Lamine. Matar Ndiaye yor grand bañik mu ngi waa Matar. am ni ñoom ñaara ngi waa lii nu mën a demee. yow yaa yor grand bañik yow nga yor ñi Pape Yékini. waaw li ko waral mooy xale yi buñ boole wu ñu bëree du sotti comme bokkuñu écurie te combat dafa il faut ñu bàyyi leen ñu bëre parce que ñun bëre wuñu ay manager lañu dañ leen di wutal ay combat pour ñu bëre mais amul benn problème boo xam ne war na cee dox pour pour que le meilleur gagne. papa ak doom la moom sama papa la moom mooy sama papa ci lamb ji doom ñoo war a bëre comme dañu tëj saison bi rek ma tëjaale ko moom sama papa la ma tëjaale ko rek bu ma bare jëlee ko carburant ñu ñibbi. waaye nag fàtte na yàlla fàtte na yàlla de mi ngi bëgg a fàtte yàlla. te doomu de. waaw yàlla waaw mu ngi noonu ku nekk bay sa tool rek <laughs> yàlla yàlla yëpp ñëpp waaw baax na jërëjëf fi di champion laa yor de waaw léegi ñu ngi dellusi loolu kenn weddiwu ko incha allah waaye kii tamit moo fi bëre woon ak Reug Reug ca bés bu métti ba bés bu ñu jox ko victoire ñu dem classé biir rig waaw arbe soufflé na ndeysaan eh Pape Yékini ngay door Grand Mbagnick mu koy door eh Grand Mbagnick mu ngi koy door jàpp na jàpp na ko jàpp na ko de eh, Ndiaye jàpp na ko Grand Mbagnick jàpp na Pape Yekini nee na du ko bàyyi eh nee na du ko bàyyi songule songule eh songule na ko dina ko daan de jàppoon nañu de xëcc na ko mu ngay raam mu bëgg a def ak moom Grand Mbagnick mi maa dóoru sonal ko daan na ko oh jàpp daan taxawal ba rëy na la ilaha illallah eh Grand Mbagnick a ngi daf na yëf yi grand daf na yëf yi grand Talla Ndiaye grand mbañu kënju daf na yëf yi daan fay na ko turam ànd ak saison bi di liggéey ba saison bi tëj ah oui Babacar dinaa jooy lamb Modou Anta lamb dinañ ko eh, lamb tëj na Babacar lamb tëj na waaw ba kañ ah, ci kàttanu yàlla léegi rek maa du yàgg du yàgg eh, aywa jooy naa lamb jooy waay Talla Ndiaye jooy naa lamb ee eh, Talla saison bi lay tëj booy Eumeu la wax bi lay tëj. non li moom neex na lool maay encouragé sama mbër Eumeu Sène ma xamal ko li làmb la rek maa koy encouragé bu baax a baax. am na solo félicité Tyson bu baax a baax. kon saison bi tëj na Talla. tey le 31 juillet 2019 Talla. may nuyu soppey Babacar yi 100 pour 100 Babacar bi ñoom Grand Laye ñoom Jige ñoom Diouf ñoom Cédric ñoom Pape ñoom Mass ah Seydina Essa nuyu naa ñëpp sam kii na doomu laat la doomu laat Ndiaye waaw looy wax looy wax waaw laa ñu ngi sant suñu mag am na laaj di ko gërëm yaayam gërëm na ko ay gërëm na ko baayam gërëm na ko ñaan saison bi ñëw yàlla dàq bi ci nuyu naa ñëpp taala balu ñëpp ak yàlla na am jàmm no stress pas de problème nii la jafe-jafe waa Europe du ma leen fàtte waa États-Unis Khady Rose Ndiaye Fatma Fall